asalaamaaleykum mbokki sa 7 TV bisimilah ci xibaaru dikk bëccëg yi ci kalama wolof mam mbégte janoo ci ak Kajoor Cissé maa ngi leen nuyu. maa ngi lay fay Suzanne di nuyu mbokk yi ñuy teewlu. ay ci ñu jukki ponk bokk na ci xëccoo bu dox ci diggante euh, jëwriñ ñu dénk wàllu euh, hydraulique ak assainissement docteur euh, Cheikh Tidiane Dièye ak ki fi nekkoon DG wu ONAS muy xulo buy wëy nag tey ji ministère bu assainissement dina fas yéene jàkkaarloo ko wëy taskatu xibaar yi ngir moom it mu indi li nga xam ne moom la xam ci mbir mi ginnaaw ba ko Cheikh Dieng dal di defee loolu tey jii lay amee si bëccëg ci jamono joojee li nga xam ne moom mooy front social bi am na beneen kuréel bu juddu ñu duppee ko collectif de licenciés et impactés du régime de Diomaye muy kuréel goo xam ne dafay dajale ay nit yoo xam ne dañu leen dàq ci ay bërëbu liggéeykaay bu régime bi euh, sampo ba léegi ñoom nag nit ki démb ñu doon janook way taskatu xibaar yi fas yéene nag am ay euh, taxawaay yoo xam ne daañ ko am ngir seen àq ak yelleef ñu daal leen koy euh, delloo ca euh, màggalu Touba daañu ci waxtaan ren ji euh, ñu koy euh, dëgmal ñu ne nag ci waxtaan yi ginnaaw njiitu réew ma woon ma demoon niki démb foofee ca Touba tey nag jëwriñ ñu dénk wàllu biir réew mi dina fa dem itam ngir daal jiite benn waxtaan boo xam ne dafay ñeel wattaayu boobu lépp xew-xew ñeel nag màggal Touba ponk yi moo gën a fës mbokk yi bu ngeen taxirloo tuuti ñoo yéen ci yaatal gi jaajëfal leen bu baax a baax ci teewlu bi ànd bekk 7TV dañ koy tàmbalee ci tënk coow yi nga xam ne dox na ci déggante ko fi jiite woon ONAS di Cheikh Dieng ak jëwriñ bi nga xam ne nañ dénk wàllum ndox mi ak assainissement du Cheikh Tidiane Dièye mu mel ni daal di fi jeexagul ndax bànqaas bu nga xam ne moom mee nag moo ko jiite fas ñëw teg gëneen jéego département ba mu jiite nag ñoom ñoo woo euh, way taskatu xibaar yi niki tey ji ngir euh, jàkkaarloo ñoom tontu seeni laaj ci li nga xam ne moom moo ñeel coow li euh, te seen jëwriñ di Cheikh Tidiane Dièye kii di docteur Dieng doon tuumal wàllu guerre ak li nga xam ne moom mooy de entente directe boo xam ne dafa ñeel ab marché tey ji nag lañ ci fas yéene indi tontu bu ju ñetti waxtu toftale tàmbalee euh, fanweeri simili ca Diamniadio lay xewe coow loolu li nga xam ne dox na nag ci seen diggante bu baax nag nii am na itam ay kilifa yu ci yàpp yi ku ci mel ni Mamadou Sy Albert di ab njàngatkat ci wàllu politique la mu xamle mooy euh, docteur Cheikh Dieng waruloon fësal benn yoon ay euh, mbir yoo xam ne daanaka euh, da a secret la ñeel wàllu administration loole nag waral ba mu sàkkut itam ci jëwriñ wi ñu dénk wàllu assainissement ngir mu bañ a addu publiquement ci li nga xam ne moom moo xew loolu warul yoon muy directeur général en tout cas ku nekk fonctionnaire surtout administration centrale lu mënti xew décret moo la faloon décret moo la folli buñ la falee doo dem ci euh, presse bi pour wax fal nañ ma donc buñ la follee mais amoo benn droit devoir de réserve euh, loolu la tekki donc directeur général bi dafa waroon euh, en tout cas muñ denc ko bañ def ci place publique parce que administration kenn du euh, du ko waxtaanee ci place publique ba naka noonu ministre bi euh, yaakaar naa du jël kàddu parce que tant que mu ngi nekk ministre warul jël kàddu euh, loolu su ko defoon ba dina ñaaw ci moom dina ñaaw ci ci gouvernement bi donc devoir de réserve moom dañ ko waroon appliquer maintenant nag lu mu indi mooy que nit ñi dañuy tuumaal. loolu mën na discréditer DG bi mën na discréditer ministre bi mën na discréditer gouvernement bi ba pour wane la daal que mbedd du pour état. Madiop Diop di ñital bokk moomeel la bu Grand Yoff daan ne dafa njàngat ci yoru dëkk nguur gi ak kilifa yu yees jàpp ne daal ñoom ñee dañoo lajji euh, lañu ñu def daal buñ ko mënee méngale ak euh, daanaka ñi ñu utu yëf yi nag amul rek xayma gumba gu mat. njàngatam nag yemul ci loolee ndax nag élection yi nu weesu moom taxawaay bu ci euh, askanu Grand Yoff am ci vote yi doon lu ko jaaxal ñu teewlu ay kàddoom. mais amoon na lu mu loo xam ne moom nekkoon na ci mais defu ko mais ñii ñoo gën a pire xam nga ñii li ñu gëmloo Sénégalais ñu leen fale kenn fale kenn mosu fale noonu président Sénégal ñoom dañu waroon fexe ba leneen Sénégalais yi fale ñu am ngor respecté lu ñu waxoon ne mais defuñu ko man day ñaanum yàlla ànd ak Pastef élection taxaw Sénégal nag ñoom entité la mun nañu luñ d'accord man loolaa d'accord mais man bu dee man kase bëgguma ànd ak Pastef élection. war ñu war ñu sanctionné Khalifa parce que ñun dañu am bilan liggéeyal dëkk bi dañu war a dañu war a dañu war a réconforter mooy votel ensuite Grand Yoff daa bëri ay problème yoo xam ne état moo ko mun réglé te wax naa leen ko problème am Grand Yoff problème assainissement problème foncier problème lotissement état moo ko mën commune mënu ko Khalifa nekkoon président tey mu wóor na ne xefe xip ma rek la Grand Yoff du amati problème problème yooyu loolu moo tax ma gën a am déception peut-être la mais ils ont fait un mauvais kuréel gu duppee seen bopp licencié impacté du régime de Diomaye ñoom ñee nag daanaka di kuli xeet daat ne juddu ngir rek seeni i kàddu ñu mën ko dégg. daanaka ay sénégalais la yoo xam ne dañu leen dàq ci seen bërëbu euh, liggéeykaay yu ci mel ni ay euh, AIBD ak fi nga xam ne moom mooy port autonome bu Dakar ak yeneen i màkkaan ñoom nag ñoo fa yéene taxaw doon benn say ngir xeex seen àq ak seen yelleef ca noonu lañu ñu ci ñeneen ñëpp ñoo xam ne ci yeneen ministères yi dañu leen fa dàq keroog bu régime bi ay yegsee ñu ànd ceeg Moussa Mané dañoo jóg daal di booloo taxawal seen benn collectif tuddee ko collectif de licenciés du régime de Diomaye ñoom ñi le nag bokk na ci lu leen métti mooy anam bi nga xamante ne ni noonu la direction yi bees yi tàmbalee doxal lu ko dalee port ay AIBD Promise wala sax DER ñoom ñi le nag di nakarlu bu baax baax dàq ji nga xamante ni nii nekk nemmeeku ci yooyu la direction ca Lonase lu tolloog 500 prestataires daanaka lañ lañ daal di daqal seeni contrat direction bi daal di koy wedd ba mu set wecc le 8 juillet bi ñu weesu bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi ñu bindoon lu tolloog 173 prestataires lañ daal di daqal seeni contrat ndax ñoom ñooñee seen contrat bi dafa daal di jeex ca port autonome bu Dakar intersyndical bi tamit di ñaxtu bu baax a baax ndax lu tolloog 700 prestataires daanaka lañ fa daal di dàq dàqal seeni contrat li ni nag direction bi tamit daal di génne communiqué weddi li ni ba mu daal di set wicc ndax moom it mu xamle mooy ñooñee seeni contrat moo daal di jeex jamono ji mbir yi daal di metti fépp di yëngu daanaka li mel nag jur bi leen njàkkare ba collectif bi di woote ngir ñu daal di mànkoo boole seeni doole ba injustice bi nga xamante ni nii moom lañ nekk di nemmeeku ci yenn direction yi ñu mun koo xeex ndax Sénégal réewu droit la jërëjëf Moussa Mané lu mooy loolu dañuy wax itam ci syndicat yu ëmb cadre yu yëngu ci wàllum assurance ñoom itam eh, mere nañ ba futtu seen jiit ne daal joxuñu cër benn yoon la ñu tënkoon ci atum 1977. ci ab eh, ndaje ak way xibaar yi dañoo dal di eh, sàkku rek ci ñi nga xam ne ñoom ñooy autorités yi daanaka ñu wañ loxo ñi nga xam ne ñoom ñoo leen di liggéeyloo ngir ñu daal di tënku ci déggoo boobee nga xam ne am na ñu ko ñu ànd ceeg Omar Thiam. liggéeykat ak cadre yu syndicat yu assurance daal di ñëw ci barabu syndicat bi leen jaboote ngir rek daal di yuuxu seen jooyu xool convention bi nag 1977 ba léegi nag mënuñu koo wote naam nag ci atum ñaari ju nekk ñaar fukk ak ñett daanaka ñëpp a déggoo woon ci kàddu rek ngir daal di koy xaatim mu mel ne nag saa su nekk njiit yi ñoo koy sabote ministère du travail bi nga xam ne moom loolu ci ay compétence am la nekk woote li ñuy wax comité mixte paritaire woo syndicat bi woo patronat bi dajale ñu ñu daje waxtaan ba jubóo euh, ñu woo ñu depuis le 31 juillet 2023 nañu ñëw signer convention bi nga xam ne moo war a tënk secteur bi à notre grande surprise juillet 2023 ba fi ñu jonn jàll tey ñu toog di wax a génn gisuñu suñu patron yi boobu la ñu disparaître dañu bëgg ñi leen jiite reconnaître loolu ngeen liggéey ci jàmm ak salaam CNTS loolu la wax mi ngi ci seen wet boobu le secteur nag diggante 2018 ak léegi dugal na ci lu ëpp junni milliards ci koppar ci gafagu Sénégal teewul nag liggéeykat yi ay jafe-jafe ñoo leen nar a xaarandi bu dee convention boobee xaatimuñu ko loolee waral nag ñu daal di tàllal seen yoxo njiit yu yees yi rawatina nag jëwriñ gi gàlloo wàllum liggéey. li torof tàngi bu travailleur yi nekk yëpp tey. convention ba moo ñu ko teg ñu ngi leen di woo nag parce que kilifa dañuy ñëw ñu waxtaan parce que ay nit bu leen yàlla boolee ngeen nekk ci secteur da ngeen war a diisoo waxtaan et jëf li nga xam ne mooy jëmale ñi ci kanam. syndicat national bu ëmb liggéeykat yu entreprise d'assurance yi nag am nañ yàqin ni dinañ jégoo ci kàddu ak patronat bi bu dee loolee mujjuta ent nag ñuy xamle ni dinañ amal beneen doxalin bu bees. ci diwaanu ko Touba ñu ngi ci waajtaay gu mujj gi ngir waajal màggalu Touba bi nga xam ne daañu ko amal àjjuma gi ñaar fan ñett ci weer wu ñu nekk jàppale na nag ci xayma gi rek ak li nga xam ne mooy waajtaay yu fu mu toll général Jean-Baptiste Tine bi nga xam ne nii moom jëndu ñu dénk biir réew dina fa dem niki moom nag moo nar a jiite ndaje moomee nga xam ne dinañ ko amal ci teewaayu Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadr moom mi nga xam ne moo jiite comité d'organisation boobu lépp màggal ak yeneen i euh, banqaas yoo xam ne dafa ñeel wàllu organisation bi ndaje moomee nag euh, daañu ko amal ni ki tey ji bu ñeenti waxtu euh, jotee ca résidence Xaadimul Rasul dañuy des ci diwaanu Touba ndax niki démb itam ji ci réew mi Bassirou Diomaye Faye ak soxnaam ni mu ca àndal eggoon nañ foofu dafa daal di yëkkati nag ay kàddu jëmale ko ci ki nga xam ne moom mooy xalif bi ñeel nag euh, bëgg-bëggam waaye itam ak ñamu àndal ngir fexe rek ba sàmmonteeg li nga xam ne moom lañu ñu digle woon rawatina nag jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu am foofu ca Touba muy ñàkkum ndox naka noonu noonu wàllu assainissement mu fas yéene ci euh, taxaw na mu waree. ñu teew fii sa kanam Mbàkke di la ziyaara. di wax suñu mbégte gu rëy rëy rëy gu ñu am ci gannaaw bi ñu fi ñëwee fekk la fi njaboot gi yëpp te di jublu ci bés boo xam ne avant mu doon jot laa waxoon première ministre na xool ak yenn ministre yi nga xamante ne ñoom la seen loxo gën a dugg ci liy euh, defar ci liy yombal ci liy màggal lépp li nga xamante ne ci bés bii lañuy jublu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 mooy jéem a liggéey réew mi. des ba tey ci boobu ku nemmeeku bi nga xam ne ci réew mi Bassirou Diomaye Faye amal na ko ci diwaanu Touba nekk prof ndool itam ñu àddu jëmale ci l'accident yu métti yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci réew mi. donte sax nag euh, moom euh, gis na ni accident yooyu dogal yi yàlla mu ngi ci waaye teewul sàkku na ci euh, chauffeur si ngir ñu gën a sàmmonteeg li nga xam ne moom mooy code de la route. chauffeur si lay waxal nañ gën a ànd dal ak ndànk ndax daaw.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 addu ci ni ki démb ci altine gi taw bi soob ci ndakaaru jot na jur ay gàllankoor ci yenn ci ay dëkkuwaay rawatina ci wannu kolobaan foofee nañ dafa yeewoo am nañu jafe-jafe ci rek dem beeg dikk bi li ko waral nag bokk na ci daanaka ndox mi moo taafu nekk. jafe-jafe yooyu itam lañu nemmeeku ca dina naka noonu ca fas askan wa fay eh, yeewoo daal di naxaru nag mbedd yi nga xam ne daanaka dafa yàqu ñu ànd ceeg jéen ba Umar Sow saa su tawee jafe-jafe yu bëri li ñu ne nemmeeku ci biir capital bu senegaal njeexital yi danga ko gis fépp foo sànni say gët rawatina fii ci rond-point Colobane mbir mi nekk na lu metti ci ñi fi yeewoo ñi nga xamante ne dañuy xuus ci ndox yi ngir rek mën a jéggi ci tali yi nga xamante ne dañoo fees dell ab ndox oto yi ak moto yi sax dañoo am jafe-jafe daw li ni mel la ñu nemmeeku ci biir marché Colobane bi itam ci bile bërëb ndoxu taw mi dafa jaxasoog ndoxu foos yi ak mbalit bi ñu seen fépp li leen nakk daal di rek jural jafe-jafe ñi fay jaayee. taw kese du métti waaye yenn saa daa am lu ci loo xam ne ay ndoxi foos ak yoo xam ne gars yi dañu tijji seen foos ak yooyu mooy gàllankoor yi ñu jooy moom. waa nga fii bërëbu liggéeykaay nit ñi dañuy taxaw di jënd jaaykaay lekk moom daa war a civilisé ñii di marchand ambulant yi ak dawalkatu moto cak-cak yi ñoo si gën a am jafe-jafe ndax lii dafay taxawal seen liggéey ya bu tawee moom yaay xool noo koy organisé rek mais du yomb da génn dem di xool fooy mais taataay yi sonal nañu lool essence bi mënoo génn sax ak moto wala oto yooyu noonu ndax ndox mi maa ngi ni bëgg a dem géej waaye mënu dem léegi lan moo pour ma dem parcelle mënumaa dem taxawaay bi dafa metti ak taw bi nii quoi xam nga ñun dañuy samp ay maquette man lañu yoraguñu place yaa ma gën a xam duñu mën a jaay quoi te clients yi mooy loolu bi la situation yemul rek foofee ca Colobane Fass ak Médina itam loolee lañ fa nemmeeku fi nag yàqu yoon principal bi nekk diggante rond-point Sam ak place de la nation moo gën a yokk mbir mi c'est loole itam encombrement daal di tegu depuis plus de vingt ans tali bi kenn mënu ko defar kenn defaruñu ko bu ñu defaroon tali bi ndox yi du fi nekk mais tali bi kenn defaru ko bu budul budul nawet bi budul taw bi sax dañu am problème ak fi ñuy def fi garage xoolal oto yi nu mu ràññee si fii kenn amul foo jaar waaye encombrement bi kenn amul foo jaar population bi duñu noyyi. les populations ñoo ngay woo mairie Médina ak bu Gueule Tapée Fass Colobane ñu booloo liggéeyandoo ngir rek xeex li ni mel. soo waxee maire boo boo demee si maire yi def revendication mu ne la demal si maire bi entre Bamba Fall. ak maire yi euh, Abdou Aziz Pay ñaari maire yi daal ñoo war a euh, déggoo assier pour jéem def. ca noonee la ñuy jaaree addu ci xibaar yi bi ci réew yi dañ ciy taxaw ak wopp gi nga xam ne mi ngi tàmbali woon at na wërngal këpp pour ko impox yi fi nag moom mu mel ni rek kuréel gi nga xam ne mooy sottu wàllu wërgu yaram ci at këpp d' organisation mondiale de la santé li mu rek euh, bëgg nag moo ci ñu daal di nag jëm ci ay ñàkk yoo xam ne daañu ko tàmbalee ci dëkk yi nga xam ne wopp gi nekk na fa. ca Maroc buur ba di Mohamed sis moom itam dafa daal di jéggal lu tollu ci ñeenti junni euh, ci ay euh, nit yu yoon tegoon loxo foofu ñuy ay baykat ginnaaw ay ñu duloon doon leen toppee mbayum ay yamba ca réew ma waaye itam xeex bay am fële euh, ca Gaza daañu ci am taxaw seetlu ànd ceeg jëma mbay si yokk gu doy waar gi ñu nemmeeku si feebaru mpox bi sa république démocratique bu Congo di feebar boo xam ne sax laal na Burundi Kenya Rwanda ak Uganda moo waral organisation mondiale de la santé di sant rek réew yi nga xam ne feebar bi dugg na fa si dendu Afrique ñu fexe ba na si plan yoo xam ne dinañu gën a rek baral ñàkk bi di vaccination bi si bërëb bi nga xam ne ni fa la mbir ma gën a bare mu di yokkute gu tiital organisation mondiale de la santé lu ni mel waral fukki fan ak ñeenti weeru août gi ñu décrété woon urgence de santé publique di yëgal àdduna wërngal këpp boobu lay feebar ak njomb yi muy wéy di def si doomu aadama yi OMS. yemul foofe bokk na si li mu santaane mooy rekk ñu gën a jëmale ñàkk yooye si doomu aadama yi nga xam ne nii ay personnes à risque lañu maanaam ñi nga xam ne feebar bi ñoom la mën a gën a laal mu mel na ñi nga xam ne jot nañoo lambisoo ak ñii amee bile feebar tout tonk yi ñii di liggéey ci wàllu wérgu yaram ci lu soxal nag wàllu dem bekk dikk bi OMS mu ngi santaane rek ñu gën a yokk kaaraange gi ak saytu bi ci frontières yi. ngir mën a aar doomu aadama yi ci feebaru mpox googee ba noppi di jàllale xibaar yi ñeel wàll gi ba ñëpp di ci jot di mën a maytu. si lu juróom ñaar fukk ak benneelu anniversaire révolution du roi et du peuple di fête bu mag foofee sa réew Maroc la buur ba di Mohamed VI jëlub dogal baal lu tolloog ñeenti junni doomu aadama ak juróom-ñetti téeméer ak fanweer ak benn nekkoon ni baykat ñoo xam ne dañ leen jàppoon dañ doon bay lii di yàmba jëriñ gi gàlla wàllu yoon sa réewu Maroc moo ko xam xamle bi si guddi mu di dogal goo xam ne nag lii si buur bi jublu du lenn lu dul fexe rek ba ñu mën a daganal sa boobule réew benn pàcc si mbayum loole di cannabis di yàmba mu war a nekk cannabis boo xam ne dañu koy jëfandikoo ci ay garab Maroc nekk premier producteur mondial cannabis bu ñu sukkandikoo ci mbootaayu xeeti di ONU atum 2021 la ñu wote woon ab loi ngir indi ay jooyante ci mbayum yàmbaa googe Maroc bëgg xeex lii di sinebar bëgg it gën a dëgëral toogaayam ci marché mondialu cannabis maanaam yàmbaa bi nga xam ne dañ ko daganal jëwriñ ngi gàlla wàllu wér gu yaram bu gouvernement bu Gaza moo xëy tey di xamle ni ba xeex bi tàmbalee sa bande bu Gaza ba léegi am si lu tolloog fukki weer ak benn lu tolloog ñeent fukki junni doomu aadama ak téeméer ak juróom ñett ñoo ñàkk seen bakkan sa suufu Palestine ne nañ si waxtu yi ñu weesu fan weeri bakkan ak ñeent rot na sa boobule diiwaan mu si yokk na ña si jëlee ay gaañu gaañu seen lim toll na si juróom-ñaar fukki junne ak ñaar yu toftal juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar ñoo xam ne ni gaañ nañ leen sa xeex boobu jolli woon juróom-ñaari fanweeri octobre gi ñu weesu. jërëjëf jëmm mbay bu ko defee ñu teewlu ëtt yéen dalal ak jàmm yéen kaay bari di kaat nañ si xeet mu njëkk tukkib ne mekk bi nga xam ne kaata moom la jomaay amuloon fële ca Touba ci peggu xalif général ko lu murit sëriñ Muntaxa Mbàkke le soleil nee na ci waajtaay yooyu daal gis ne kaata mi ngi ci jamono ji nga xam ne naa ndax waame gi moom jomaay dalal na xel bu xalif général des murit sëriñ Muntaxa Mbàkke ba tey ci kanamam kat nee na daal da ngi wu ngir daal di saafara fa saasa li nga xam ne jafe-jafe ci am ndox mu neex ca Touba waaye tam wàllum assainissement bi de ba tey ci laas jomaay mi ngi expliqué maanaam yéen yéen kat bi kat ne daal Touba projet prioritaire la ci nga xam ne kay moo njiit réew mi nee na kat la nga xam ne daal mooy ndox mi ci ndox mu sell Touba dana ko am wàllum uh, cet gi tamit daan ci bokk maanaam assainissement bi léegi l'info daal di tënk wax ji daal di ko teg ak formule tuddee moom uh, ñi ngi daal jaajëfal Bassirou Diomaye Faye ba tax na kat mi ngi engagé wu daal di uh, indi li nga xam mooy ndox mu sell ca Touba bés bi jour daal di wax ci xëtu mu njëkk ne kat ubbi leen seen i buntu waaye tamit euh, ñi nga xam ne kat ñoo voté wul sax pour yéen waaye tamit ak seen i famille ba daal ak ñi nga kat a tam daal di fësal li nga xam kat mooy waaye tam Touba jamono ji kat ña nga jëy tëmm waame gi daal foo ko takk weesu na ko ko ci ñeenti fat ñoo am ñu waajal màggal ci l'observateur lañ desandi ba ne daal jafe-jafe am na ci diggante Cheikh Dieng ak Cheikh Tidiane Dieye jëru dénk wàllum au assainissement ku ci nekk daal yàq sa morom melengaan waaye dafa mel daal mbir mi kat daanaka sax laaj ak tontu la ba ñi nga xam daal Cheikh Tidiane Dieye nañ ko ci wàllum xam kat mooy daal xeex li nga xam mooy wàllum guerre waaye jamono ji kat moom dafa mel daal dafa nërmeelu ndax it yi tukkee ci Mamadou Seck ne daal jamono ji kat moom ma nga ci jafe-jafe ba dafa mel kat jafe-jafe ma ngay wéy ndax Walf Quotidien nee na dafa mel kat euh, ci ne kat euh, daal wàcc ndax lu bëree bëri ci étude nga xam ne moo tukkee ci direction générale planification ci ay politique économique nee daal koom gi dafa taga témbe lool dara demul dikkul ba tax kat ci yenn cas dafa mel kat njiitu entreprise yi ji kat ci ay recouvrement ci wàllum lay mën a métti daal moo nga ca enquête ne daal bu ñu deful nank rek li nga mooy contrat pétrole yi kat jomaay ak ki mooy Sonko daan ko gën a càmbaraat waaye càmbar googe kat deful nank daal du baax ci Sénégal ndax compagnie pétrole yi nag daal yéen ngay nelaw waaye ca poor moom daanaka ñu bëri kat ñi ngi wax ni kat la nga mooy jub jubal dafa mel kat dëngal moo fa xew ñoom ñi ngi doon jot seen li nga xam mooy ci transport lañ ko gën a yéeme waaye ki nga kat mooy Koromak euh, Faye nee daal li nga xam accident yi fi jóg ndax gis ne kat mbir mi ay mbiri jinne da cee xew ndax fa kat seen i dëkkaay dañ koo daal di jël ba tax na ñoom kat ba tax kat ñoom ña nga del ci tali ci les échos ba tey cauchemar dëgg ci yenn kaay yi ba rajo ak ak web TV ñoom kat jamono ji bu ñu defoon ñu bëri daal ñu tëj ndax CNRA moom kat benn weer leen appal a kat ci ndimbal yi nga xam ne moo doon jagleel presse bi am ñoo xam ne kat dañoo gis seen tur ci liste bi waaye sax bu ne daal jox nañu benn million tous dara gisuñu ko ba tax ñoom nee na am na ko fa jaar daal di rocc seen pa kalpe ne daal daañu déposer plainte ci fan yi di ñëw ba tey libération mi ñuy joxe xibaar ci ki nga xam ne mooy Abdoulaye Seck moom mi nga xam ne dañ ko daal di jiñoon trafic de drogue am na liberté yaa ngeen jëf cant ngërëm ñeel na ko moom Momar Cissé mbokki jaare fi buur jotaayu xibaar yi jaajëfe leen baax ci tàllu bi ànd beeg seet TV amoon mbégte jàkkaarloo ci ak jox Cissé mbégte la ñu am itam jàkkaarloo xibaar yi ci tënk juróom waxtu la doon ci kàllaama nasaraan ak wolof ngeen di ci feggoo ak Jibril Diallo jaa ngeen jëf